asalaamaaleykum euh, enquête 221 comme d'habitude comme vous avez l'habitude de la faire toujours événement bu munti am vraiment kenn du leen jëkk jiitu ci information yi pour mun ko baaxe askan wi euh, man Abdoulaye Diop laa tudd nekk le DG groupe 7 vision nekk un promoteur agréé de l'État en même temps le directeur exécutif de H2CI Afrique de l'Ouest waaw comme li nga wax ci terme sud mun naa ci euh, wax parce que li ci ñi ñi xam rek laa ci xam parce que boo xoolee c'est soixante-dix-neuf familles yoo xamante ne tey jii dañ leen jëlee ci seen logement yi je crois le maire Barthélémy Diaz actuellement moom moo leen accueillir moom pratiquement gis naa ko sax mu dem au niveau si benn euh, presse de la place di jéem a def benn euh, téléthon pour mun leen recaser ñu seet fan lañ leen di yóbbu mais néanmoins boo xoolee le chef de l'État est trop sensible par rapport à ça si la waxtaan ak le ministre des forces armées ba ñu dégager huit cent millions pour jagleel ko mooy les soixante-dix-neuf familles su huit cent millions yooyu dañ koy verser comico mooy coopérative bu armée bi pour mu jëm leen a utal ay kër je crois que loolu loolu la ci état bi dafagum pour ñu jéem a xool nan lañ leen di euh, placer quelque part ñu am ay logement comme tout le monde. waaw waaw loolu mooy li ñuy wax rek euh, toujours benn problème toujours la ñuy am dama ne nit bu nekkee en location dama koy jël exemple rek ci nit ku nekk en location. d'habitude boo xoolee euh, logement casse-tête la ici au Sénégal parce que da ngay gis une famille boo xamante ne dañuy louer fenn mu nekk euh, nouveau benn nouveau couple dëkk fa pendant trente ans di fay location si toutefois ñu toog pendant cinq ans ou si si six mois à sept mois fay ñu location rek si la waa koñ bi yëpp di xam ne moomul foofu mais par contre cas bi dama yaakaar ne c'est des familles militaires yoo xam ne dañu nekkoon en activité ñu toog ñu jox leen des logements de fonction bu ñu leen joxee ay logements de fonction bu ñu demee ba nekk ñu nekkatuñu en activité dans les normes dañu war a génn ci logement de fonction yooyu pour ñu mën a ko réaffecter ñi nga xam ne ñoo nekk en activité je crois que loolu la woon pratiquement sénégalais moo amul culture boobu d'habitude waa façon bi boo xoolee ñi nga xamante ne dañu nekkoon en activité ñu jox leen ko bu ñu nekkatulee en activité dans les norme bu ñu leen joxee sommation dañu war a au moins génne seen njaboot yi dem feneen parce que nekkatuñu activité moo taxoon ñu jox leen ko bu ñu nekkatulee en activité dans les norme dañu war a libérer locaux pour ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk en activité mun ci nekk mais par contre toujours li may wax euh, administration du suivre problème ba mu egg au bout toujours dafa am benn. laxisme laa ko mun a tuddee boo xamante ne dañ koy seetaan di ko seetaan di ko seetaan ba mu nekk nit droit ci nit ki parce que tey jii boo nekkee en activité ñu jox la logement de fonction boo demee ba nekkatoo en activité dans les normes bu ñu la joxee délai pour nga mën a génn automatiquement dañu war a am rigueur ak contrôle buy permettre nga génn à temps mais buñ ko bàyyee muy perdurer muy perdurer ba nga yaakaar ne lii nga nekk sax droit la ci yow pratiquement dama naan photo administration la parce que je crois que depuis bi ñu leen joxee sommation yàgg na bu ñu fat bu ñu ci taxawoon période yooyu kon tey ji problème bi du ñëw déggoo li ma la wax le chef de l'État a dégagé huit cent millions pour les soixante-dix-neuf familles comico lañ koy logé comico dañu am seeni programme mooy armée bi dañu am seen coopérative non comico moo gën a gaaw programme yi ñu nekk moo tax ñu logé leen comico parce que comico tout le temps mu ngi def ay programme boo xoolee cité comico yi bari nañ Dakar léegi nag pour aller beaucoup plus vite parce que dañu nekk dans le besoin moo tax tey jii état major jël cent millions yi jagleel ko comico pour ñu utal leen daar daar ay kër parce que bu dee dañuy xaar programme boo xam ne ñu ngi koy doog a lancé je crois fi ak fin de octobre lañ koy démarrer mun na dem 2021 ñu commencé livrer les maisons mun na yéex tandis que Comico il est en plein construction ñoom la ñuy xool ci ban zone la ñu nekk actuellement jéem leen a seet nu ñu leen recaser le plus rapidement possible au lieu ñuy xam programme mu 100000 logements yi mais Comico jël leen moo gën a gaaw parce que mu ngi construire ñu jéem a xool nañ leen di reloger le plus possible waaw xam nga titre d'habitude bàyyi dafa am durée de vie tant que nekkul tiitre foncier bàyyi euh, titre locatif la tey jii buñ ne la bàyyi bi 30 ans lay durer bu dee dañ ne la bàyyi bi 30 ans lay durer bu 30 ans yi du jeexee day delluwaat ci titre état à partir de là-bas état mooy xool lan la ciy def lan lay utiliser waatee suuf si je crois bàyyi bi. bi fa nekkoon titre ba fa nekkoon wi nga xam ne armée moo ko moomoon titre ba jeex na mu de delluwaat ci titre état état moo koy immatriculé waat xool ba xam nan la koy nan la koy na nan la koy répartir je crois que loolu la mais titre foncier moo amul dure de vie mais bu dee bàyyi dafa am durée de vie tey jii mun nañ la jox bàyyi boo xam ne en location la sur une durée de trente ans bu trente ans yi jeexee day delluwaat ci titre état. kon donc li ñuy wax répartition boobu c'est des rumeurs dégg naa ko comme ni ko ñi ñi déggee mais du loo xamante ne décret la wala euh, décret de defectation la wala dara loo xam ne génn na ci titre boobu ñi ñey spéculer rek ku nekk di wax li nga xalaat naan wala lii day revenir jaraaf yi lii pratiquement toujours rumeur yooyu la ñi ñi di dawal d'habitude naan lii day revenir état lii day revenir kii ñi autorités yi lañ koy jox comme d'habitude tout le temps noonu la gars yi di rumeur yi mais ba léegi état titre titre ku gu ko pour mun a affecté ko ne diw laay affecté suuf soosu wala déet. waaw mhm. donc situation bi je crois réglé nañ ko parce que bu ma ne la on a dégagé huit cent millions jox ko armée pour armée non c'est vrai c'est vrai parce que ministre bi ministre des forces armées génn na ci ba wax na ci. déjà ils ont ils sont en train de discuter avec euh, moom mooy euh, coopérative bu Comico bi pour xool ba xam nan lañ leen di utalee ay logement le plus rapidement possible kon loolu c'est une réalité je crois bien d'ici peu de temps di nga leen gis ñoom ñëpp ñu loger leen te aussi mënuma dem te aussi euh, waxuma ci programme bi nga xam ne c'est le programme du chef de l'État muy les cent mille logements qu'on doit démarrer incessamment au mois d'octobre fii ak fin octobre je crois que Euh, boucler nañ dossier yi actuellement lancement bi fii ak fin octobre lañ koy def premier programme bi Sandiara la ñuy def pose premier pierre bi pour les cent mille logements ñu bëri dañ doon wax éléphant blanc la cent mille logements yi dañ ko lancé mais du c'est pas quelque chose de réalisable loolu la nit ñi wax mais yàlla mu ngi suturaal euh, programme chef de l'État nga xamante ne programme am phare la pour c'est pour bi actuellement ci mandat bii mu nekk loolu lay reyante ba nga xamante ne promesse bi nga xam ne moom la defoon population bi mu fexe ba euh, même bu ko atteindre à cent pour cent à soixante à soixante-dix pour cent mu mën a atteindre li nga xam ne mooy programme bi te incha allahu rabbi fii fin octobre nañ ko lancé officiellement programme mu cent mille logements bi avec le groupe 7 vision. waa second et dernier mandat mooy comme li ma ca waxoon bee passé rek laa ciy waxaat moi je ne suis pas euh, un employé de l'État parce que je suis dans le je suis libre ma wax loo xamante ne tey jii bu ko keneen déggee it munul affecté dara ci li may liggéey mais dama nekk comme li ma lay wax rek man dama nekk ci parti très organisé muy Benno Bokk Yaakaar plus particulièrement euh, APR agence a, a, Alliance pour la République du Sénégal ñu am benn ligne de conduite bi ñu demee comité directeur on on s'était d'accord que lii nga xamante ne moom mooy ay second ou deuxième mandat ou troisième ou quatrième mandat nañ ko teg te jéem a xool nan la ñuy satisfaire population bi te bañ di si focaliser wu trop looloo tax toujours même chose lay wax man dama nekk ci par parti bu organisé ñu am discipline boo xamante ne règlement intérieur boo xam ne moom moo ñuy permettre ñu wax wala ñu ba ñàkk wax mais man je ne suis pas mandaté pour le parti ma toog di wax boo leen fi ñëwee da ngeen di ñëw en tant que journaliste man ngeen may poser en tant que privé kon donc second et dernier mandat damay jàpp discipline parti bi rek comme la ñu tëral ne lii buñ ci wax duma ci wax tey jii munoon naa ci xuus ba sam comme ni peut-être ñi ko ñit ñi di éviter man du ma koy éviter wu ko mais quand même discipline daf lay may ñu ne lii bu ci kenn wax te nga bokk ci organisation ñëpp tëral ne charte yi lii la dama ciy tënku bës nag bu ma génnoon ca parti ba nga xamante ne dara tënku ma bu boobaa lu ma neex ma wax ko ci jërëjëf. vraiment maa ngi leen di remercier enquête 221 comme d'habitude ñoom seen tour ngeen uyu rek seen tour ngeen uyu mooy ça veut dire événement bu munti xew di ngeen recueillir information yi fexe ba dugal ko ci population bi baaxee leen ko ba ñu vraiment ñu mun a mu mun a mu mun a leen amal njëriñ vraiment maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax jërëjëf thank you